ci li nga xamante ne mooy information ñu wut euh, par rapport au procès euh, ñu gis ne rek li ci bu weesoo témoins yi nga xamante ni ñi xamuñu leen lool lu bëri néew na témoins yoo xamante ne côté Adji Sarr ñu nekkee boo ci génnee Sidi Ahmed Mbaye mm-hmm, mm-hmm. Euh, ak peut-être ñi nga xamante ne mooy ku ci mel ni Mamour Diallo mm-hmm. ñooñu nga xamante ne ñeneen ñëpp pratiquement témoins yoo xam ne dañu doon décharger Ousmane Sonko la woon te ñooñu incha allah ci dina ñu jël kàddu ci bilee biir procès donc muy li nga xamante ni Moustapha wax na ko muy lu am solo waaye tamit eh, leneen lu am solo muy eh, témoins yi nga xamante ni jàpp nañ ni tamit eh, am nañ ci solo bu baax a baax ci ci mbir mi donc ku ci mel ni Sidi Ahmed Mbaye donc def nañu rappel bi comme ni ko Moustapha mhm. waxee dañuy dañuy rappelé waat rek li nga xamante ni ñoom ñoo di ay témoins mhm. ñu retenir leen ci dossier bi pour ñu daal di war a témoigner Sidi Ahmed Mbaye ci la bokk Alfousseynou Gaye Aïssatou Ba Salla Wade Mamour Diallo Aminata Ba Elisabeth Delphina Gomis Sall Seydina Omar Touré Ababacar Niass Abra Ibrahim Koulibaly Ndeye Rokhaya Fall euh, Fati Kébé ak bu Ngom ñooñu ñooy euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, témoigner ci dossier boobu mais nag ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi souligner que ñu bëree bëri ci témoins yi dañoo absenté. Mm-hmm. ñëwuñu mais ki ñu ki ñi ñu ki ñu wala ñi ñu gis ne que wala ñi xam comme ñi am comme information que ñoom teew nañ fa. mooy ku ci mm-hmm. mel ne docteur Alfousseynou Gaye ku ci mel ne. Eh, ki nga xamante ni moom moo di Seydina Omar Touré. Mm-hmm. muy eh, capitaine Touré ñoom mm-hmm. moom am leer na que ni ñoom ñu ngi ci tribunal ñëw nañu. Mm-hmm. Euh, parce que euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu fa teewal wax nañu ñoom gis nañ leen mais ñu ci des moom je pense que aussi Ibrahima Koulibaly ah jabar jëkkëru Ndeye Khady Ndiaye moom tamit euh, mi mi teew na voilà mais ñi ci des moom amuñu benn information que ni ña nga foofu ci tribunal mais nag duñu wax ne nekkuñu fa. Eh, d' après information yi ñuy jëlee foofu en tout cas am na ay absence yu bëri jëm ci côté côté euh, témoins yi. Mhm. voilà am na ay absence am ci côté témoin mais euh, information ñu amaat ci fële nga xamante ne mooy euh, tribunal mooy euh, maître Tall moom mooy sàkku tamit ñu renvoyé li nga xamante ne moo di procès bi maître Sarr di laaj maître El Hadj ay vidéo El Hadj ne ko vidéo yi ci baar ba lañ koy joxe <laughs> wax leen Ousmane Sonko mu ñëw moo gën ngeen di ma laaj ay vidéo waxtu wi quoi donc pour vous dire que ne rek avocat yi ak Ousmane Sonko ñooy laaj voilà ñoo koy laaj seen vidéo yi nga doon wax yor ngeen ko donc donc waaye kon audience audience bi euh, xumb na fi ñu nii audience bi audience bi xumb na xumb na xumb na jamono ji bu baax a baax a baax a baax parce mm. moom dafay sàkku ba léegi renvoi bi mm. comme ni ñu ko waxee euh, ba ci jëmale weeru septembre sama lay sàkku euh. pour Ndeye Khady Ndiaye xam naa mën a gën a gën a gën a gën a mën a feex voilà fekk fekk mu mu mu am doom parce état de santé mayu ko jamono ji mi mm. toog taxaw ci baar beeg yu ni mel te effectivement jigéen bu ëmb xam naa c'est compliqué loolu parce que jigéen bu ëmbee ba fii moom vraiment <laughs> waaw fi mu toll nii et taxaw ci baa stress beeg yooyu yëpp moom moom xam naa doom doom yu mujjee jur moom yërëm naa leen parce que li tamit c'était comme bi mu juddoo après gendarme bi taxaw bi baa nga ëmbaat Euh, dem dem taxaw ci baar baak yëpp vraiment. te il euh, paraît euh, ko woon dafa dafa mm-hmm. mm-hmm. a mm-hmm. ni mu ko waxee ah, moom ci ci ci entretien boobu. dafa doon jaabante ba daanaka mbirum ba muy xew sax fekk ko fa moom. hôpital la ko fekk. en daal mooy procès bi moom war nañ ko jeexal. non non mi ngi dem mi ngi dem moom mi ngi dem te dinañ jeex amul. <laughs> ngi dem te dina jeex. moom dafa mel ni ñoom dugg nañ ci projet bi tax yéen dugg ko sax. waaw même même si si di nga gis kii tooñ ki yow yaa ne sa client def ñu ana ana preuve yeeg yooyu quoi. ana ana vidéo yi waaw yooyu yëpp daf ci daf daf ci am. seen mm. biir dañuy tooñante dañuy mbalagante déconné mm, mm, plané yow nag bi bi musul dem couvrir wala ki ko xamul souvent yow lay bett ci yenn kàddu yi wala yenn information yi balaa nga koo xam mooy bu ñu bu ñu bu ñu plaidé ba pare ñu yëg si saal ba sa kaw ñu daje fa fi di simi seen rob yeeg yooyu di waxtaan après waaw da ngay da ngay da ngay xam ne tëb c'est c'est la même famille mm. euh, loolu moo tax yu bëri euh, parfois du am du am surprise boo koy gis si biir tribunal yenn réaction yi mm-hmm. ak euh, li ci am mais daal ak lépp liñ ci mën a retenir pour le moment daal mooy avocat yi ñoom seen biir moom mm-hmm. ma mayantewuñu dara mm-hmm. mayantewuñu dara ñi ci gën a ràññeeku ñu ngi leen di dégg seen ñëw si ba ci kanam sànq ba léegi bokk na ci maître Khoureychi Ba bokk na ci maître Moussa Sarr maître El Hadj Diouf turam moom dafay revenir lu gën a bëri ak maître Abou Dialy Kane nga xamante ne ñëw na rejoindre audience bi bi mu dooree tuuti. Mmh. audience bi bi mu dooree tuuti donc mën na jàpp ne kon yëf yi euh, Moustapha suñu sukkandikoo euh, ci ni muy demee nii euh, dafa mel ni avant juge bi li mu wax mooy que dañuy retenir mbir mi dafa mel ni ñu ngi ñu ngi àttee jamono ji li nga xamante ni moom moo di mbirum Adji Sarr Ousmane Sonko ci ci ci ñàkk teewaayu Ousmane mmh. Sonko mi waral coow li nga xamante ni moom lañu ko jiiñ

ci huit mois ba ay avocat am doon euh, sàkku ci juge bi ngir ñu indil ko ab chaise mu juróon fa caw lu bëree bëri finalement ba ñu indee chaise bi moom day xel njaay ne moom euh, soxlawul chaise bi mën na mën na taxaw donc euh, li nga xamante ni tamit mën nañ ko ci jàpp ba fii ñu toll ni mooy renvoi renvoi procès bi nga xamante ni waa waa aji waa kër aji waa kër Ousmane ak waa kër Ndeye Khady Ndiaye ñu koy sàkk boobu ba léegi ci juge bi ngir ñu mën ko renvoyer ndax jàpp na ni ñoom am na loo xam ne si ni des na pour ñu mën ko ñu jàpp ko ci dossier bi ak ni dañuy soog a ñëw moo xam ci côté Ndeye Khady Ndiaye la ñoom a gën a moo di moom moo di dossier bi ñoom aussi wax nañ ko ni bu ñu renvoyé li nga xamante moom moo di procès bi ñoom waa kër ñi nga xamante ñoom ñooy jàppal tànk Ousmane Sonko di ay avocat am ñeneen dinañ fexe ba def le tout ba Ousmane Sonko daal mën a ñëw teew ci boobu le procès comme ça dinañu ko at adapté comme euh, ni ñu ko bëggee bu ko defee ñoom ñu mën a am kaddu euh, parce que bu fekkente ni seen euh, seen client boobu Ousmane Sonko ñëwul ñoom bu ñu àttee du ñu a jël kaddu défendre seen client te loolee mën na nekk loo xam ne si ni man na indil ay jafe-jafe seen client muy Ousmane Sonko donc la ñu mën a jàpp ak absence yi ñu noté ci côté témoins yi ni lim bu takku la ñu woon li ñu ci mën a jàpp mooy que ni ñett wala ñett rek la ñu wax gis ni dañoo xam que ni wala ñu am information que ni ñoom ñu ngi ci tribunal bi muy ki nga xamante ni moom moo di Ibrahima Koulibaly di eh, jëkkëru Ndeye eh, Ndeye Khady Ndiaye ak ki nga xamante ni moom moo di docteur Alfousseyni Gaye waaye eh, keneen ki nga xamante ni moom moo di euh, moom moo di capitaine Touré. Mhm. Euh, moom tamit daal dina yeer teew ci euh, boobu lépp procès comme témoin donc mbir yi ñu ngi dem ñu ngi wéy di am fële ci tribunal bu ndakaar am Ndiaye indi Diop ji ci entre ñi nga xamante ni ñoom ñoo di avocat yi ña ngay ña ngi koy defante bu baax a baax maître El Hadj Diouf li mu wax mooy que ni nañu retenir dossier bi àtte ko tey moom di avocat Adji Sarr ak ki nga xamante ni moom moo di maître abu Dialy moom tamit la mu wax mooy que ni nañu daal di bi ndax fii ñuy àtte du chambre cri du chambre euh, correctionnelle mais chambre criminelle la euh, donc nañu ko àtte tey mu daal ci jeex loolee la ñu mën a jàppandeegun déjà euh, ci li nga xamante ni moom moo di procès Ousmane Sonko Adji Sarr di xew fële ci tribunal ci chambre criminelle su fekkente ni am na lu yees <laughs> Fafa da nga sonn. dara yeesagul. dara yeesagul gaa nga cay ñu nga ca demande renvoi mais je pense que li ñu def nii on peut passer toute la journée. ci ci mhm. lii mais il faut les juges les juges il faut que juge bi jël décision sinon fii nii li avocat yi di def nii mën nañ ko def ba vingt heures si guddi parce que euh, ku ci nekk yaa ngi wax lan moo tax nga bëgg ñu renvoyer euh, réplique bi di jugee ci mm-hmm. partie civile bi donc bu bu fekkee juge bi tranché wul rek mm-hmm. euh, wax na leen day renvoyer wala day téye mm-hmm. mën nañ fi yendu te lii tamit perte temps la ba tey ci biir procès bi li ñuy def nii perte parce que ñoom il se répète il se répète li ñuy wax mooy Ndeye Khady Ndiaye administration je pense que ñaari ñaari ñaari affaire yooyu rek la avocat yi di nekk di rouler kenn ku ci nekk ñëw wax ko à ta mm-hmm. donc buñ buñ continuer nii di procéder nii euh, mun nañ dem ba vingt te juge bi du wax lu parce que moom mooy euh, clientam nee jigéen bu tolloo nii di dund lii taxaw ci baar naa ko jaar ci ëmb mm-hmm. dund lii aussi tamit moo waral mu tuur ay xéewal yu bëri ci tribunal tribunal ba. Mm. mais mais nag ko na toog ci chaise bi ñu ko jox. na mm-hmm. toog ci chaise bi ñu ko jox mu mu mu mu mu ñu àtte ko. xam nga aussi la loi c'est la loi tamit. la loi c'est la c'est la loi tamit. sëgam mm. nit ku tëdd si lalu hôpital. dañuy jagat jagate indi ak ay ay perfusion ko donc du ñu bàyyi jigéen bu bu mm. wan lor. donc euh, Ndeye Khady Ndiaye comme jox nañ ko chaise bi mënoon na ci toog bu ci toogoon su ko defee peut-être dina apaiser affaire yi tuuti ñu mën a avancer. parce que lii ñuy def nii moom mooy tourner autour autour du pot loolu lañ nekk di def nii actuellement. moom lañ nekk di def nii Ndeye Khady Ndiaye ba léegi mi ngi taxaw nag te bu ñu mhm. moytuwul nag xam na léegi mi ngi taxaw li li li yàq mbir mooy day jékki-jékki rek daanu daal nga coro mba coro mm. nga genre bañ ko tey mën na am bu daanoon amaana bañ doon na am mu am ko parce que ñu avocat yi dañuy taxaw ne foog Ndeye Khady Ndiaye ñëw dafa war a wax parce que ñëwoon dafa war a wax et euh, euh, mm-hmm. dafa bokk ci accusé yi war a ñëw ci coobareem yi nga xamante mm-hmm. ñoom ñooy témoins clés yi mm-hmm. mooy euh, Mamour Diallo ak l'autre Baye Mbaye MC rek war na mën a tax ñu renvoyé ko dem indi parce que ñoom nee na nee na moom selon moom ñaari témoins yooyu waruñ mën a ñàkk mais ñaari témoins yi ñoo demal seen bopp ñaari euh, ko indi moom <laughs> Baye Mbaye MC moo demal boppam jël jël jël ah. billet dem avion jël jël billet dagg jël avion dem dem mm-hmm. États-Unis ne dafa daw kay loo ci man <laughs> kooku lu neex a ah, ah, kooku loo koy lijjanti boo ko xaar xaar loolu ba mooy at duñ ko atte <laughs> nañ bàyyi caaxaan <laughs> en mooy mooy li ñu wax léegi rek ñu ngi leen di toppal li nga xamante ni moom moo di euh, audience bu àttee euh, Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak ki nga mm-hmm. xamante ni moom moo di Ndeye Khady Ndiaye fële ca chambre criminelle donc yéen a ngi dégg information yi ni ñu ko joxee en temps réel euh, ak selon li nga xamante ni noonu lay fii di amee fële ca ca ca ci tribunal bu bu Ndakaaru Moustapha mm-hmm. je pense que yaa ngi toppal mbir mi yow ak ki nga xamante ni moom moo di eh, moom moo di ma Kama madame Mbaye eh, xam naa ne moom dafa kontaan ñi sax maa xam léegi mi ngi reetaan rek. Eh, dinaa ne bala bu ñuy jeexal dinaa ne lu tax mu kontaan na en tout cas ñu daal di continuer di jot xibaar yi tukkee fële ca salle d'audience bi ñuy àttee Ousmane Sonko ak ak ki nga xamante moom moo Adji Raby ki nga xamante ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye di patron bu Sweet Beauté Moustapha comme ni nga ko maître Tall. Mm-hmm. mu ne moom ñaar ñi dañu nekk ay témoins clés ci mbir mi muy ki nga xamante ni moom moo di. Eh, Mamour Diallo ak eh, ki nga xamante ni moom moo di Baye Mbaye MC Baye Mbaye MC ñu fàttali que ni moom eh, bi yi affaire audio yooyu moom moo taxoon mu di mu daal di daw dem fële nga xamante ni moom moo di États-Unis dégg nga gis nañ ci ay live yoo xam ne si ni mi ngi koy def depuis les États-Unis di ci wax li wax li tax moo xam si ni mu daal di dem ci ci réew moom mi la toog fa Mamour Diallo moom yaakaar naa ni mi ngi ci réew mi mais teewul fële nga xamante ni moom moo di moom di ci tribunal bu Ndakaaru ba tax ne maître Tall bokk ci avocat yi Ousmane Sonko daal di koy soulever mooy importance su ñaari eh, témoins yooyu leen li ci mën ci am mooy que ni euh, ba léegi ñu ngi leen koy toppal en direct ci euh, sunugal 24 point net ngeen mën a partagé euh, vidéo bi donc bu ko defee ñëpp ñi nga xamante nii tey dossier bi wala procès bi soxal na leen dinañu mën a dinañ ko mën a topp daal di koy am en direct ci sunugal 24 point net bu ko defee dara du leen ci dara du leen ci ump ñi fàttali que ni salle bo tamit ñu ngi doon wax que ni salle bi nekkul salle boo xam ne si ni comme ñi ñu ñu sul dem salle 4 boobu mooy salle bu ngande salle bu gën a mag ca palais de justice ba ñu atte fa ñu atte fa ñu atte yooyu fa lañ koy defee fa lañ koy atte Khalifa Ababacar Sall waaw feesalu ko waaw ndax dafa am ci kaw ak dafa am ci kaw am ci ci mhm. suuf mhm. donc ci suuf rek pour nga feesal ko c'est un problème mhm. waxuma la nag ci ci ci kaw moom euh, dafay dafay na xare feesal te la ñu gis ñuy dugg ci suba feesaluñu salle boobu la waaw ndax daanaka amul woon buuxante amul woon dara quelques personnes ñoo fa nekkoon woon rang ñu ñu ñu ñu joxe ñu identifier leen euh, ñu daal di ñu daal di dugg suñu naataango yi tamit muy euh, la presse ñi ngi fa ñi ngi ci buntu bi ñoom du ñu dugg waaye ñi ngi ci buntu bi euh, di joxe di wala di taataan li nga xamante ni moom mooy nekk di tukkee ci procès boobu. daanaka salle bi dafa yaraax lool sax. mais ñoom bàyyiwuñu nit ñi ñu dugg aussi. non non dafa mel ni taskatu xibaar daal bu ko weesoo. boo xoolee image yi ñuy teg ci waaw bu weesoo taskatu xibaar moom daanaka audience bi kenn nekku fa. kenn nekku fa loolu moom nit ñi constaté nañ ko. et puis mm. information yi fi am loolu la ñu loolu la ñu xamal daal. Mm. comme ni mu daan mel par rapport ak bu njëkk bi. xam nga c'était c'était début ñu am fi benn information maître Massokhna Kane mi nga xam ne daa bokk ci avocat wu yi moom mm. nee na menacé na euh, cour bi nee na leen su fekkee da ngeen a décider retenir affaire bi benn avocat wu Ousmane Sonko du des ci biir salle bi maanaam dañuy buddee ñoom ñëpp dañuy dem bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi fa saal bi noonu. ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom ñoom ñi ko décider juger loolu it mbir la. Mm-hmm. mbir la <laughs> Moussa Fall loolu mbir la. donc ah, avocat Ousmane Sonko yi ñoom ñoom ñoom maître ma soxna kan donc bokk ci avocat Ousmane Sonko yi moom moo waxee lu nu mel mm-hmm. donc nee na moom euh, su fekkente ni yëf yi euh, retenir nañ ko ki nga xamante ne moom moo di juge bi retenir na ko pour ñoom dinañu mm-hmm. budde saal dafa mel nag jamono ji li ñu ñu fi ñu teg seen tànk ñoom ñëpp mooy Ndeye Khady bi nga xam te moom lañ jàpp mooy mais su fekkente ni su fekkente ni jugé wuñu ko tey il faut ñu xaar ne Khady am doom ba mën mm-hmm. kii ñu soog ko attewaat ñu soog ko attewaat loolu moom mënoo mm-hmm. nga xaar quelques taxaw wax la de loolu koy amul dara mën mën la mën nga bàyyi xale ba kër ga sax nàmpal da wala ñu indi ko teg ci nale mu nàmpal dem mm-hmm. loolu moom taxaw taxaw am doom du tee nga dem nga dem témoigne wala nga déglu jublu ji mm. bokkul ak ak yeneen mbir quoi peut bu ñu ko doon daax xam naa li ñuy laaj mooy ñaari weer wala ñetti weer yoo xamante ne yàlla dina ko may bakkanam mais kuñu ku atte ku atte ku tëdd ci ci civière ko xam si ni tey mënoo dox yaakaar naa ni tey ku mën a taxaw ku mën a taxaw ba ñu laaj chaise

gars ngi ñu ngi ñu ngi comme témoin yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi laaj témoin rek donc. ñu ngi euh, ñu ngi àtte Touré la ñu woo Maman Ba Sidi Ahmed Ibrahima ak docteur Alfousseni. ñoom ñu mm-hmm. ngi fa woo la barre actuelle ñu ngi fa ñu ngi fa nii donc voilà voilà loolu c'est important c'est c'est wax ne que ñu bëri dañu ñu ngi fa waaw mm-hmm. actuellement ñoom la ñu euh, oo la barre léegi nag docteur Alfousseni Kane la ñu njëkk a posé mm-hmm. question ci certificat médical bi moom confirmé na ne moom moo ko def d' accord euh, am nañu voilà euh, mooy ki nga xamante moom maître Tall muy que ni moom li ma sàkk mooy que nii dossier bi dañ ko war a renvoyer jusqu'au mois d' août. ou septembre pour euh, permettre à Ndeye Khady Ndiaye d'assurer sa défense. Mm -hmm. Je pense qu'il n'y a pas de. je pense que ñu ngi ci ñu ngi ci dossier bi de je pense que ñu ngi koy vider actuellement ñu ngi koy vider comme ñu ngi mm-hmm. indi ay témoins. parce que témoins yi commencé na ñu leen di poser question yooyu donc l'affaire est vraiment retenue. les les témoins qui sont présents mm-hmm. euh, au tribunal appelés à la barre muy Salah Wade Elisabeth Delphine Gomis Mamadou Fall Ousseynou Omar euh, Omar Fall Mokhtoulé et Ababacar Niass Ndeye Rokhaya Fall Fati Kébé ak ki nga xamante ni moom mooy Seynabou Ngom donc euh, voilà ñooñu tamit ci témoins yi la ñu bokk. Mhm. mais Mamour Diallo moom il est absent. il est absent c'est confirmé. c'est confirmé MC Mbaye. ak MC waaw ah. MC moom nekku fi ah. moom tamit nekku fi. waaw donc euh, li nga xamante ni tey am na ci euh, foo li nga xamante moom moo di salkat. E, bu tribunal bu Ndakaaru chambre criminelle ñuy àtte Ousmane Sonko ak ki nga xamante ni e, moom moo di e, Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye patron suite patron suite beauté moom moo am ay jafe-jafe li nga xamante ni moom moo di wér yaram ñu xam ñi xamal que ni dafa nekk dafa tollu diggante dafa nekk jigéenu wérul ba am juróom-ñetti weer docteur Alfousseyni Gaye moom comme ni ko Fatou waxee moom confirmé na li nga xamante ni moom moo di certificat médical bi devant les juges. Mm-hmm. Mm-hmm. noonu la ñu ko xamle suñu ndaw ñu fa teewal moom moo ñu ko xamal mooy que ni euh, docteur Assane Gaye moom nangu na ni moom moo def euh, lii di certificat médical bi mm-hmm. devant le tribunal donc euh, mi ngi noonu Moustapha su fekkee am na loo yokk ci ci loolu tamit muy confirmation maanaam certificat médical bi nga xamante ni docteur Assane Gaye def na ko ça va. gisoo gis gisoo gis gisaguma ko nga baax mm-hmm. joxal Fatou ba xam. waaw ma ma xool. Mm,

waaw docteur Afousseyni Gueye loolu la wax effectivement noonu rek mën def. parce que mm. ñëpp xam ne moo def euh, certificat médical bi moo ko euh, euh, ñu yi nga xam ne ñu ngi ko koy posé avocat avocat yi dinañ jël parole dinañ ko posé ay question ñu xam. Mm-hmm. exactement lan moo nekk carrément dëgg bi ñu xam ko. parce que mm-hmm. certificat médical bi ñu bëri ñu ngi naan dañ ko falsifié dañoo lii dañoo laa donc moom il est la personne bi nga xam ne moom moo ñu mën a leeralal ci loolu. Mm-hmm. moo tax ñu bëri doon wax procès bi bu amee dëgg bi dafay. feeñ ñu xam exactement ñoom ñoom la ñu woowagum fi ñu toll nii sax ñoom la ñu mm-hmm. Ahmed Mbaye voilà Ibrahima Koulibaly docteur Alpha Seyni ñoom la ñu actuellement ki ma jox information la loolu la loolu la loolu lañ ma wax man nee na en tout a dafa mm-hmm. sentir ne Adji dafa tiit mm-hmm. nee moom loolu la sentir actuellement il sent que dafa tiit ak euh, confiance bi mu amoon depuis boobu ba tey mais nag les choses sérieuses commencent aussi bu fekkee ay ay lu dul dëgg la tamit mm-hmm. dëgg bi dafay ñëw feeñ dëgg rek mooy mujj mooy li ma doon li ma doon wax li ma doon wax day am Sonko nga xam ne voilà l'absence de Sonko aussi xaw daf koy xaw a euh, kii touché daf koy touché parce que bu fekkente ne loolu moo la taxoon ñu préparé la ko mm-hmm. boo ñëwee nga wax ko lii wala nga def lii mm-hmm. boo jàkkaarloo juge bi ah, nga xam ne fii caaxaan jeex na te loo fu wax am amaana mën na retourner sa kaw donc soo deful ndànk rek da ngay da ngay da ngay patiner moo tax ma ne bu Sonko ñëwoon dinañ am procès bu neex sax luñ fa mën a wax ak lépp luñ ko gi nit ñi dafuñu quoi mhm. fii léppay leer lépp luñ fa wax nit ñi nañ xam léegi li ciy dëgg ak lu ci dul mooy mooy li ma doon wax mhm. fii keroog rek euh, Sénégal dañuy wax rek mais gis nga fii kenn mënu fi noot nit teg ko yenn yi population bi toog di seetaan mënul nekk dëgg rek mooy mujjee dëgg kese mooy mujjee te ñu mhm. nañu xool rek procès bi mi ngi dem eh, man am naa yaakaar ne buñ ci ci jógoon tey ji buñ ko dàqoon biir ñëw Ousmane Sonko